amuñ lu dul ziyaara bi képp ku ñëw ngir fekk lañ si ziyaara bi dañ lay tatagal dañ lay gatandu dañ lay ñaanal yàlla defal ñu liñ xamee ni mooy jàmm macha allah duñu waaye ñun suñ maamala jab laa ñes les grands dafa téye jaa si jihaat mm-hmm. jihaat ak maba jaxu ànd ak maba jaxu jihaat Paate Badiane jihaat Sonko nekk xaadi yi mooy juge yoo xam ne juge bu maandu la te ko teg ci yoon maama laa jàpp laa ñes tabaarakallaahu rawale diineem ak tariqaam ak xeexal li nga xam ne mooy askanu Sénégal tax mu exilé boppam dem Gambie am na fukki at foofa lay déparé dem fees maama laa jàpp laa moomu ne ku muy sa doo ragal ku muy doo xool déglu pression yi mm. kenn du la mën a jënd ndax ñu ñun fii kër ak Sowetaas la maam Khalifa waxoon ne ne sama kër gi fii la daan woyee yonent Yàlla Muhammad fii la ko wax loo xam ne kenn waxu ko ko fii la ko waxee ne ko yow yaay ki nga xam ne yaa sauvé univers bi bu taxatoon ak yow yonent Yàlla Muhammad ñëpp ala ko nañ mu ne ko أنت للكرب كاشف ومغيث إن أتدنا البأساء والضراء دكا جوغن أنت دمير مخاطب ما خليفة دو حاج محمد مومو مونة سما كرجي كفو كفو دوغو آجو جو هم يالا فنو مونة كفو أم يقري نيو في نح كرجو قم يونو يالا محمد فران أن سيد أحمد يالا فران دوغو ما شاء أن كون يون لأي تتغل دلوا بيفني سي أن سي سي سوبي si say am di jàmm si ñoo xam ne tabaarakallaahu dara ñoru leen lu réew mi ñun lew na ña seen réew mi am jàmm rek moo ñor réew mu tegu si yoon rek moo ñu ñor réew mi jub rek moo ñu ñor réew mi nekk réew moo xam ne lépp luñ am li fiy génnee wax réew mi jëriñoo ko loolu waral tabaarakallaahu ñu roy sunu maam Alaaji Abdoulaye Niass rek combat rek combat combat noonu la doon xeex tubaab di colonialiste yi ba amoon na ay jaam yoo xam ne tubaab lañ mu tuubal leen tuddee leen Fatou Touba kooku El Hadj Abdoulaye Niass mooy maami sang bi mooy maami xalifa bi kon boo ñëwee dañ la xamal ña am fulla am fayda dara fukk leen yub ak ragal yàlla jaamu yàlla te nangoo liggéey lii la lii mooy nekkoon kàddu yi tabarakallahu famille baa fi ñu la présenté ndax ñëpp ñëw koo koo tuddul waaye boo leen kër El Hadj Abdoulaye Niass fi kër maam xalifatul Haaji Mahamad mbooleem doomam naka dag si kër Balaaji mu ndaw kër Xaaj Babacar kër Xaaj Omar kër Xaaj Ibrahima kër Xaaj Aliou ñoom a ngi fi. mbooleem famille El Hadj Abdoulaye Niass ñëpp a ngi fi. tabaarakallaahu ak taalibe am di jàmm ñëpp a ngi fi tabaarakallah kon lii moo nekkoon kàddu ñuy yëkkati njëkk xalifa bi euh, le porte parole xalifa di wax mi nga moom lala la booleel macha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di jégalu nag di jégalu. di jéggalu waaye nag buñ sañoon tabarakallahu ah du demee nii waaye nag eh, eh, li alquran wa kullu shay'in indahu bi miqdar wa kullu lu nekk rek am na fu ko nu ko yàlla dogalee ak fa mu koy dogalee kon ñu ngi sant yàlla ci dogalam tabarakallahu ndax ay jullit lañ te jullit day nangu dogal ñu ngi leen gërëm di leen sant ñu jox Cheikh Ahmed Tidiane bu noppee nag tabarakallahu ñu jox ki nga xam ñooy sa délégation ñu lim ko boo waxee pare ki nga xam ne moo fi toogal al xalifa mu am mu delloo la ñaanal la yàlla muy le porte parole Cheikh Ahmad Ababacar xalifatu xaasi Mouhamad fal yatafadal mashkuran Cheikh ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp خلفيارة الأولى النساء وأي توقعي وقرب صرب الأولى النساء وأنه خلف سنرة الأولى النساء تاي جمو جيتو مو مك الأولى النساء ويسون وايجو ويسون وايجو دي دي دي كليفة waaye di ko xam ne mboolem kàddu kër gi dañ koo teg teg ko ci loxo kon moom moom bu waxee yóbbaale la ñëpp président Ousmane ñu ngi lay rafetlu sa kër saal bii nga toog nee ko Aliou El Hadj Mouhamed Niass tawal di ko Sidi Lamine Niass bi nga xam ne daa daj génn di xeex yàlla Sénégal ba dugg biir bàmmeel te yaakaar naa loolu suñuy baay ak suñuy maam ci lañ nekkoon fukk nag bi daa yóbbu beneen bi ci des mooy chaque jour. président Ousmane Sonko dafa am lu muy wax ñu fàttali ko nit ñi bëggul ñëw kër sëriñ si wala kër sëriñ yi di fa wax lu jëm ci wàllu politique ziyaara moo ku fi indi feddali kóllëreem digganteem ak lew lañu seen comme ni nga koy defee yeneen këru diine yëpp am na ñoo xam ne nag seen ak cofeel kenn mënu leen a téye waaye moom bëgg-bëggam li tax mu yéexoon a wàcc mooy bu xale yi bàyyiwut yuuxoo bi ñuy yuuxoo ci buntu kër xalifa bi du ma wàcc kon kooku fa tabaarakallaahu lépp lu ñuy liggéey dafa ñëw pour feddali ñu ko waaye lépp lu suñu maam yi nekkoon dafa da koo da koo ñëw pour suuxat ko président Ousmane liñ lay liñ lay xamante ni la ko yëgal mooy leew nañu seen gii ay soppe rek nga fi am leew nañu seen gii ay am leew na nag ba méttee Ablaye Wade dina di wàcc nguur gi day def troisième mandat Mouhamed Ibrahim di taaw Alaaji Ibrahima Niass moo taxaw fii ne ala Abdoulaye Wade dina wàcc réew mi ndax wàcc réew mi mooy jàmmi Sénégal troisième mandat bëgguñ ko fi na ñu seen boobu moo taxawaat tey jii ne ànduñ ci injustice ànduñ ci jaay doole ànduñ ci leneen politikuñ nag waaye dañuy wax li nga xam ne mi ngi xew ci réew mi te buñ ko waxee wut fii danañu laaj lu tax waxee wuluñ ko foofu te jamono jii nag dóore bi bari na xoqatal bi bari na ñaan yooyu moo ko fi indi a garanti yooyu ak seen i baay ceeb maam papa ngeen ñaanal ko ko garantel ñu ko incha allah li rek lañ ci moom jërë ngeen jëf. moom ngay dégg wala ki koy présenté. Cheikh sa kado waaw mi ñu dégloo kiy wax ki président Ousmane jox kàddu gi pour mu wax muy Serigne Cheikh Thioro Mbacké di setu Xaadimul Rasuul suñ maam Serigne Touba lim def nag wajaba war ndax bu ñëwé kër xalifatul haji mohammed ness jox ku sant Mbacké mu wax. kon loolu dëgg-dëgg doy na doy na kéemaan ñu déglu Serigne Cheikh Thioro Mbacké mu wax. comme ni ko Serigne Sia waxee rek président Ousmane Sonko rek këri diine yi fu ñu dem discours faral di waxee mooy ñëw ngir politique dama koy ñëw ngir sàmm ñaan dama koy ñëw xam ne sa bopp fii nag tànk yi ko fooral indi bëri na bi si jiitu ku ci nekk xamoon na digganteem ak Sidi Lamine Niass mu nekkoon doom ci moom mu nekkoon rakk ci mu nekkoon fonk lool bi muy nekk ci tournée européen boobu muy 2018 jàpp 2019 déggante woon ak Sidi ba rek fu moo ñëwee Sénégal suñu borom dogal li muy dogal kon kóllëre boobu nag na mu ñëwaat ci kër gi benn bi topp bu ci nekk gis na njaboot fi ko teg taxawaay bu muy taxaw lu jëm ci wàllu baax moom kenn ku ci mën njaboot maam xarit te jàpp naa ne kon mu ñëw ma kàddu wax du nekk ci benn kenn ndax ku ci nekk xamoon na maam xarit ak si Amadou Bamba ilaa jaxso mu ñëwoon kenn bi baax ki mu wàcc bi liggéey sax hmm. Serigne Touba dafa digaloon suñu mbàkk bi hmm. ak maam Cheikh Anta ñëw jaare ku ci nekk gis na suñu mbàkk bi mooy mooy ndox xarit kon jàpp naa ne par exemple man soo ko njabootu diine sox nañ ko wàccuwaay loolu hmm. kon Serigne bi ñu ngi sàpp ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax incha allah ñun nit diine yi boo gisee ñu gis suñu bopp ci projet gis suñu bopp ci li muy def mooy dañoo jàpp ne diine l'islam ci Sénégal cër buñ ko war jox ñu jóg te ñun gis nañ moom fi mu tëdd diine loolu ci démb bi ñuy lancé mouvement doomi daara yi gis nañ nit diine dayoo wuti mouvement bi loolu jàpp naa ne njort bu rafet rafet lañ ko ci nit ñi kon président Ousmane Sonko mi fi ñëw di sàkku ñaan bu baax a baax a baax du ñëw kër benn kilifa diine nag di fa wut péri ci politique mhm. ndax xam ne ni fii moom bu fi nekk ndaje seex wala di muy jaaxaan na tey ji ñi ngeen waa kër Pastef bi noonu ngeen yilifi waa APR waa réew waaye nag am na droit ñëw xamal leen boppam ñëw xamal leen ci ñëw njaboot gi sonn ngir moom tañ bokk fii ñëw xamal leen bis bi mu ko ànd bu sañoon de lépp luy def bis moo koy def kon jàpp naa kon bu ñëwee fii day sàkkuwaat ñaan bu baax baax Serigne Cheikh mii nag mi leen a dénkaat bu baax te xam ne mi ngi koy taxaw mi ngi koy féete foo xamante ni ñu bëri féete ak njaboot gi yëpp bu mooy lim nañ njaboot gi yëpp gis nañ ne parti bi jaral na ko lu ne ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla bañ a tas sa yaakaar xam nañ ne yàlla tas sa gor boo jàppee président Sonko bu jàpp keneen ñun ñi xam ne xam nañ fi technique diine kan ndax ñun ñooy njëkk ñu mën a ñun ñooy doomu daara bi ku njëkk jàppale mais bokk nañ ci doomu daara yi ku njëkk jàppale te gis nañ fi ñuy teg wax naa ko waxati ko kon sëñ ñu ngi sant ñu baax a baax a baax a di sant bu baax di gërëm kàddu gi préparé moo tax xaw ma waaye daal kàddu yi sant lay lay def ndax gis nañ ñu teeroo yooyu ñu taxawale te gis nañ mbooloo bi ku ñëw wóorul kenn ndax ñu ngi ci siyaar asalaamaaleykum wa rahmatulah. السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته waa kër gi ak waa jotaay bi yëpp. waaye di jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi suñu xalifa suñu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane. di ko ziyaara di ko sargal di ko ndokkeel ci bés bi waaye it di jël nuyoo bi teg ci loxoom. ñoo ñu mboolem njaboot di nuyu suñu baay ji toog fii nga xam ne defe naa suñoo teg tànk fii ci kër gi te fekkuñu ko fi mu dalal ñu déglu ñu waxtaan ak ñun di am mbégte di nuyu kilifa yi julim ñep waaye képp ku fi teew rek ci ay kilifa ci njabotu mam Khalifa ñu lay nuyu képp ku fi teew ci kilifa ci njabotu mam Abdoulaye ñass ñu lay nuyu euh, di nuyu it ñi nga xam dañ leen fi fekk te ñu bok suñu njabot ci walu politique moo xam ñi nga xam ne dañoo yor ndomb tànk ci parti bi te sëñ Diagne mii teewal leen fi ndax sëñ Bosse dafa sori moo xamit ñi nga xam ne yoruñu ndomb tànk waaye taxawee ci liggéey bi taxaw boo xam ne àdduna yëpp gis nañ ko te moom ñu koy lim sëñ Cheikh mii jàkkaarloog man di am mbégte teew fii nag ndax ay fani fan ci gannaaw bi may jotee carton d'invitation bi ci laa woote ne dinaa ñëw bu soobee yàlla bu ma amoon bu ma yónnee woon sax carton d'invitation te mu fekk ma fi ma ànd ak wér ak tal dinaa ñëw rawatina nag bu ñu amee yéeg-yéeg boobu ba xalaat ma ba yónni ma carton d'invitation loolu tax ñëw bi mu toon ñàkk ndax démb ci guddi lañu teer si jóge Casamance egg Dakar waaye bi ma jokkoo ak sëñ Cheikh ñu waxtaan ci lañu dëppoo ni nañu bàyyi ba mu xaw a gën a dal ñu doog a ñëw ngoon si ñëw ziyaara ndax ñëwoon nañu ànd ak coono te li ëpp ci samay àndandoo yegg seeguñu woon ñoom ñu nga Casamance daanaka fi mu ne nii tey la ñu xëyee Casamance ñëw xaar ñu daje fii kaw la mm-hmm. muy ñii ngeen gis sama sécurité bi yëpp ñu ne woon kon ku demee na noonu dañu bàyyi ba ngoon si ñu doxantu ndànk ñëw ziar kon <coughs> ñu ngi am mbégte fii ci ziar bi di ñaan yàlla lépp lu ay mbébét lépp lu waay ñaan lépp luñ doon jublu ci ziyaara bi hmm. yal na ko yàlla nangu ci barkeb borom bés bi yal nañu yàlla may lu ëpp sax suñuy njort ci ziyaara bi sama diggante kër gi nag mu ngi commencé yàgg ndax defe naa musuma dugg Kaolack te teguma tànk fii ñëw ziyaara si te mosuma fee ñëwit ñu woon ma leneen bu dul kanam bu leer yaatal ubbeeku waaye mosuma fee ñëw te joxuñu ma cëru doom ci kër loolu nag moo tax ñu am sañ-sañu ñëw saa suñ ko bëggee ñu ciy gërëm kilifa yépp nag ndax bu doon dañoo ñëw fekk fi safaan bi ah amaana dinañ ñëw de dinañ ñëwaat waaye lu ñuy seet seetaat ko la li seigne Cheikh Thioro Mbacké wax legui moy li am nun dañu nek leneen politique doog a ñëw ndax ñun ñëpp dañu am gëm-gëm ay jullit dañu politique sax da naka luñu dab la waaye dañu dañoo judd nekk jullit te gëm na ni mom lañuy yobale it inshallah sobe yalla motax lepp luñuy def rek dañ ciy seet lan moo ci orma ak lan moo ci lu dëppoo lu xel waaye lu charte fi mën a nangu ci diine moo tax bi dooree ba léegi li mu wax da koo fàttali rek dañoo teel a wax ni ñun politique wuñu diine ji ku xamul diine rek moo koy fonto ku xamul diine mooy jàpp ni lu ñu mën a fooye la di ko jëfandikoo ci loo xam ne andul ak gëm-gëm ngir rek ay wae aduna yu wut waye dara jaru ko loolu moo biñ ci duggé lañu ne ñun politique wuñu diiné gi suñu né politique wuñu diiné gi nak moy suñuy kilifa diiné ñun ñoo leen war a njëkk ba leen ñun ñoo leen leen li mooy moyetu di leen essayer def loo wala mhm. di leen essayer wax loo mhm. waaye di leen essayer jëfandikoo ci loo xam ne mën na tax lenn ci nit ñi mhm. bët bu ñu leen xoole woon wàññeeku loolu ñun ñoo war a jëkkër góorgóor moo tax suñu ñëwee ci kër diine yàlla dafa def réew mi dafay doxee ñaari tànk tànku ñi nga xam ne di tubaab di wax wàllu temporel wala ñu mën koo wax wàllu zahir ñi nga xam ne ci loolu lañuy yëngu mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci mbirum état wala politique wala yu mel noonu ci kilifteef laa wax de réew mi dafa yëngoo ñaari tànk beneen tànk bi nag mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine gi mm-hmm. te yàlla teg leen fi ñaar yooyu faw rek ñuy jokkoo di jëflante di demlante di waxtaan waaye ci dëgg rek ci dëgg ñaar yooyu foog ñuy xamante looloo tax ku yëngatu ci li ñuy lëng yëngatu ba yàlla indi la fii nga ne bu dee démb ba ngay door kenn xamu la nga doon sol sa dàll dem seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ngir ñu xam la nga xam leen rawatina tey nag boo demee ba bu ñuy lim ci fa ngay yëngatu mu ñu lim ñaar te boolewuñ la ci loolu yàllaa ko def kon dafay jaadu ñu gën a dëgëralaat suñu diggante ak beneen tànk bi nga xam ne bu manqué réew mu amaana du dem looloo tax ñuy ñëw seet si kilifa diine yi ñaareel bi mooy ñëw dénk leen suñu bopp sàkk ñaan ndax am nañu sañ-sañ boobu waaye du lenn loo xam ne dañoo ñëw pour wax war génne mandarga naan kilifa diine gi ñun la àndal wala ñëw ut si ab kàddu buy jib bu ñu mën a ne ah kilifa gii leen ci limu wax ne ñu mooy sonko la wala diw la déedéet loolu du suñu du suñu cër ndax seen njaboot gi nun am na luñ ci am Mm-hmm. yaa moom lépp. yaa lépp. am na luñ ci am. lépp am naa njort nag ni kenn ëppale wuñ ci. waaye am na luñ ci am. waaye am na lu ci keneen am. déedéet am ci leneen. loolu ci wàllu politique la. loolu. loolu ci wàllu politique la. waaye nag boo dajalee li kaamil yépp ci loolu yéen a ko am yéen ku ci bokk ci kii ak ci kële yëpp. yéen a boole ñooñu muy seen njaboot te ñoo fexe ba njaboot googu am lu ñagas seen diggante loo xam ne day jóge ci manipulation politique. Mhm. moo tax tànk yi ñu fi andi du tànk politique léeg-léeg sax dañuy hésité lu bëri balaa ñuy ñëw mhm. ndax xam ngeen lii ngeen gis ci buntu kër gi sàkkuwuma ko. yónneewuma ko waaye yàllaa ko tuddee noonu ay armeel sax su ma fa duggoon bu fekkee fu ñuy robee balaa may génn lii am mënuma ci dara ñuy ñuy sàkku nag seen compréhension ndax bu ñu comprendre rek di nga dafa ñëw kër gi di fi politique fekk loolu sàkkuwuñu ko suñu sañoon dañuy dox ci loo xam ne ci sirru lay doom ñoom dugg def li ñuy def dem suñu kon këru diine tam këru ñëpp la loolu yàllaa ko def ndax kilifa diine ñëpp am cër ci moom ñi mu bokkal diine bokkal ak ñoom deret mën naa ne ñoom am nañu ñett wala ñeenti cër ci ñoom waaye keneen ku ne am nga ba ci ñu bokkalul diine sax am nañ cër ci nitu diine mooy cëru réew mi ñu bokk te ñoom ñu fiy kilif moo tax ñuy dalal xelu ñi fi wax ñëpp tey jii de gannaaw yàlla gannaaw yàlla gis ma lu ñu mënoon tere ñëw fii ci kër gi di suñu kër te kenn ëppalewuñu fi ñëw ziyaara ci jàmm ak dal ak teggin delluwaat ci jàmm ak dal ak teggi gisuñu suñu bëggoon a dem julli ji ci jàkka ja ci jumaa ja gannaaw yàlla gisuñu du ñu ko mënoon a tere. ndax nag ñu tere ma kër gi moo gën a yomb ñu tere ma jumaa ji. dafa annal masaajida lillaahi xaasatan falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan jumaa ji moom donte maa ko génne ci sama poos tabax ko. waaye bis bu taxawee appelé ci beneen jullit bu ñëw ci teggin ak dal jul pour julli rek dem yoonam kon loolu ñu wax ko kilifa gi ni ñëw gi mënutoon a ñàkk ndax bés bi jar na ko kër gi jar na ko kilifa yi ngeen doom jar nañ ko waaye nag rawatina bu ñu yàlla booleeg ci njaboot gi ay nit ñoo xam ne gëm naa ni fu ma daanoo ñu daanu ndaw dëgg ndaw dëgg ñu koy seede ci kanamu ay mbokkam gor la garmi la ku neex àndal la mhm. te loolu li ñuy yëngatu lu jafe la léeg-léeg mhm. gor la garmi la ku neex àndal mhm. te lu mu gis luy defar ma lu mu gis luy yàq mu mu teel ci at te ñu mel ni moom bari nañu magam jaa ngi ñi toog ak ñeneen ñëpp nag kon Ousmane. ñun ñu depuis Arabie Saoudite. waaw yéen ñu jógee Arabie Saoudite ak ñenn ak ñeneen. kon kóllëre gi ma gi ma gi ma am ak lew la. gisuma gannaaw yàlla lu ko mën a dog te yàlla du dog lu baax. kon du dog bu soobee yàlla. kóllëre googu moo tax ñu ñëw tey. di jéggalu ci guddal kàddu gi ndax xam nañ ni bés bi xat na. te xadara bi léegi mu door wala door na. moo tax ñu ne rek nañ ko tënk foofu. di dellu gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yalla mu may ñu ñu téewat ñu téewat ay ati ati at bés bu ni mel yalla may ñu luñ fi ñaan rek mu doon lu nang yeen yi di suñu kilifa yalla ni fi yàlla bàyyi di ziar nak bala ma koy fatte seen Cheikh Omar dias me nga xamne defena aduna defe xamne sama digeunte mm-hmm. te muy doom ci kër gi ñu koy gërëm bu baax ci teewaayam asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf président Ousmane Sonko ñu jox porte-parole bi porte-parole de la Xarala Léona Niassène Alhaji Ahmed Baba la porte-parole bu Léona Niassène yor kàddu xalifa voilà mbokk yi ñoo ko déggandoo léegi ñu déglu ki nga xamante ne moom mooy mooy porte-parole xalif bi ñu Cheikh Ahmed Aboubacar moom mu wax ci turu kër gi. mbokk jullit yi fi teew Cheikh Ahmad Aboubacar le porte parole xalifa mu ne mi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mi ngi leen di tatagal bu baax a baax. waaye nuyoo bi mu leen nuyoo kenn ku nekk mi ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant. ak li mu lépp ci barke. ne nuyoo boobu nga xam ne lamboo na ñett muy jàmm mu yërmande barke. ñu ngi ko yëkkati. di ko teg ci loxo président Ousmane Sonko. li tax nag ñu def ko. ku fi ku nekk. fi ñëw ku nekk. moom moo la fi indi. moo tax nuyo boobu bu ko yëkkatee. jëlee ko ci xalifa bi mi ngi koy teg ci loxo yi président Ousmane Sow. amiin yow mu ne dana yëkkati kàddoom. waaye nag mu jugee ci ndigal. ndax alxuraan def ne lépp lu leen yonent bi dikkee jël leen ko. waaye arab de ndaw lu nekk mu ngi amee darajaay ko ko yónni. mu ne yéen ñi fi teew umpale wu leen ko. umpale wu ne. umpale wu leen ne. kaddu kër gii di lew nañu seen. kaddu kër gii di lew nañu seen kër maam Xalifatul Xaaji Muhammad. kii suñu waajur di suñu sëriñ. kii seen waajur di seen sëriñ. di suñu xarit di suñu xalifa. di suñu xarit di suñu kilifa di suñu xalifa. ñëpp yëg nañ ne. ñëpp yëg nañ ne xam nañ ne. porte parole lu kër gi mooy ku yore baatam moom la ko dénk mooy Ahmed Aboubacar nii. ku mu waxul maa fay wax ci ndigal. mu ne fépp foo xam ne yëkkati na kàddu rek mu ne mi ngi koy yëkkati ci kàddu xali ci ndigalu xalifa bi. ku mu demul te war te war faa man la fay mu war a dem te manu faa dem mu ne moom mii la yónni mu teewal ko fa. léegi rek de. mu ne léegi rek de. la doon recevoir ñoo xam ne. la doon recevoir ñoo xam ne. ci ñi ngi ci feneen. te mu la yebal mu teew recevoir ñooñu. ñu ñëwee mu ne kon nag bu président Ousmane Sonko ñëwee xalifa bi tabaarakallahu jàpp waay waay mu war kaa mën a wuutu mën ñi nga xam ne délégation bi. mu ne xalifa bi moo ko président Ousmane Sonko dafiy ñëw. ne ko day président Ousmane Sonko dafiy ñëw. suba la ziyaara. te suba la ziyaara bi. yaram wi métti na lool. te yaram wi métti na lool toogaayu jumaa ji yàgg tool. te xam nañ ne fan yëpp toogul. te xam nañ ne fan yëpp toogul. te yow yaay man maa man maa yow yow yaay man. mu ne ko yow yaay man maa yow. recevoiral ma sama gan. dama bëgg nag sama gan googu muy président Ousmane Sonko Cheikh Ahmed Aboubacar nga recevoiral ma ko. lépp loo fa wax maa ko wax. lépp loo fa wax man maa ko wax man xalifa Cheikh Ahmed Tidiane. mu ne loolu mooy wax ji moo tax mu leeral ko leer nañ. président ñu ngi lay wax marhaban bika. président Ousmane ko ñu lay wax ne yaatal ñeel na la ci kër gii muy kër xalifatul Haaji Muhammad ak koo àndal ak képp koo xam ne ànd nga ak moom. ah li nga wax noonu la. mu ne ah kay li nga wax noonu la. ndax borom ndax borom keur gi moy khalifatu haj muhammad dafa wote dafa ne. dafa ne. ya bidu ya sud ya urbun wa ya ajamun fatu ilayya li al wird wa din mam khalifa dafa wote ba ko yàlla lo wa ila allah bi idni wa sirajan muniran mu ya bidu yen ñu weex ñi yaa suudu yéen ñu ñuul ñi yaa urbun yéen arab yi yaa ajamun yéen làkkat yi làkkut arab ñu ne xalifa lan la mu fatu ilayya ñëw leen ci man لأخذ الورد والدين وإلى تحمل جيت الورد وإلى أخذ الدين والورد نيل جل دين يونتي الله محمد وإجاب طريقة شيخ ما تجعل بيقى بيقى بيقى بيقى النشاء فأفقل ليأس أموال وأنفسكم لكي تفوزوا بالنيل فتح في الدين مام خليفة تقعد كبيرن بيت ممن دن نقع بنيوه لني إندالي نقل لني أمن بيري لنك أمن بيري من فاتو نيولين إليه كمان خليفة الحاج محمد بأموال عندك سيني ألو وانفسكم اكسيني بكان ناخ مني جندكو لاي القران جوجو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا اجدو كوكو بغ دا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم مام خليفنا من بوين نيوي با با اللي سن على اكسن بكان من اللي كي تفوزوا نين نين تخي نين كاني li lay li fatxi filixi di da ngeen am li ñu tuddee fatxul akbar ca saasa ci indi min a seyxi ma law kaani yaarifu ñu ne ko maam Khalifa yow bagage bi foo ko jëlee mu ne indi nekk na fi man saraf la ja moo xam ne ni mubta xabaru mubtada muñ jiital la mu ne indi nekk na fi man min a seyxi tuddee Cheikh Ahmad Tidiane maa loo xam ne law kaana bu nekkoon yaarifu di ko xam ahlul bilaadi réew yëpp mboolem les les les les cinq continents xaw ma les six continents mu ne boobaa ah cinq continents mu ne bu ñu xamoon li ma am jëlee ko Cheikh Ahmed Tidiane yi mu ne ñoom ñëpp danañ ma dikkal duna tax mii nii kenn du werante. kon nag woote boobu si ak ñi nga àndal. waaw maam Khalifa woote woote boobu président Ousmane Sonko nga wuyu si ak délégation bu tedd bi nga àndal. rawatina nag tabaarakallaahu suñu mbokk yi sant Mbàkke yaxa ñoom moom ziyaara bi. diggante ak moom na lool. te liñ dox si diggante diggante Mbàkke Ñas si xam-xam bari na lool. buñ ko doon wax rek jël na waxtu. buñ ko doon wax jël na waxtu. kon bisimilah sa kon mi ngi lay wax bisimilah sa kër. xalifa bi mu ne. mu ne xalifa bi mu ne. mi ngi lay tatagal. mi ngi lay tatagal. mi ngi lay yaatalal loxo. mi ngi lay loxo. mi ngi lay ñaanal. mi ngi lay ñaanal yàlla. yal na yàlla ñaan. kër gi nag. mu ne kër gi nag. képp ku mas a wut réew mi. képp ku mas wut réew mi. li nga xam ne loolu la ko njaboot gi waxee. li nga xam ne noonu laa ko jiitale woon ci njëlbeen li. dégg nañ la fi wala fekk mu ne déplacé nga ñëw fii sukk ci ron xalifatul xaaji Muhammad. te inna allaha la yugayiru ma yàlla nee na bu ma jëlee ab mbaax def ko ci ab nit wala am ñoñ mu ne buñ ko buñ ko delloowut du ma ko jël. te li fi neewoon démb mo fi nek tay mune budu dara sax. suñu gan nga. waaye ma suñu gan nga. ndax yàlla bu ad yonenti bi moo ne. te yonenti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo wax ci hadith bu werne man kana yumin billahi wal yawmil akhir fa yukrim nay kep ko xamne gem nga yalla lolou la ñu bari ñu koy wax. waye gem bis penc lolou lolou nak moy moy affaire bi gem ne da nga dé dajé ak yalla ca bis penc mu ne ku gëm ñaar yooyu waa ne gan ko waay. jàmm la ñuy ñaan de. mu ne ñun dey lew nañu seen jàmm la ñuy ñaan. waaye boo fi jugoon la sax. waaye fii boo fi jugee woon dégg sax jàmm la. suñu responsabilité. kon nag ngi ñaan jàmm. kon ñu ngi ñaan jàmm yàlla nañu ko yàlla defal. jàmm ci réew mi. mu ne yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. ci réew mi mu ne jàmm ci réew mi nag. mooy mu mooy waxtaanee réew mi. sëriñ si nañ waxtaanee réew mi. mu ne sëriñ si nañ waxtaanee réew mi. politiciens yi nañ waxtaanee réew mi. nañ waxtaanee réew mi. dignitaires yi réew mi mu ne dignitaires yi réew mi nañ wax na ko keroog de. mu wax na ko keroog de. Sénégal gaal la. mu ne Sénégal gaal la. ñun ñëpp ci biir mu ne ñu ngi dugg ci biir gaal bi ak suñuy bagages. gaal gaal ci biir njëkk mi da daw. gi mi ci biir géej gi di ñaan yàlla gaal gi àgg fa. mu ne dañuy ñaan yàlla gaal gi mucc ba teer fan nañ ko bëggee. loolu mu ne loolu la ñuy ñaan. suñ bés bii nag. suñ bés di ziare law dañu seet. ku dul jullit sax. mu bu ñëwee. bu ñëwee. ne ci ziare bi laa ñëw. ne ci ziare bi laa danañ ne danañ ko recevoir wax ak moom. tegginal ko. tegginal ko. teral ko teral ko. loolu loolu lañ fi sant. loolu la ñu lislaam sant loolu la ñu yonent Muhammad wax. jaaxaan nag liñ mu ne ñun nag fii lew nañu seen njaaxaanaay lañ tëddee. benn média jóg ne ña seen nii la ña seen. mu ne bu fi benn média jóg. di ñu hmm. farale fenn. naan lii wala lii ña seen jaaxaanaay la tëddee ku ñëw ñu wax ak yow recevoir la ñaanal la yàlla. mosu ñoo dañ nag di di tëddee jaaxal. te mu nag loolu ca aj daat ya la ba ci abaaya suñu maam yi suñu baay yi mosu ñoo dañ di tëddee jaaxaanaay. ci wàllu politique. mosuñoo impliqué kenn ci li ñu nekk. mosuñoo impliqué kenn ci li ñu nekk. fu ay neex. fu ay neex. nga wuti fa. nga wuti fa waay. ndax 100 pour cent nag. ndax mu ne 100 a cent. amul ko am. mu ne amul ku ko am. lu alquran wax. lan la alquran wax. walaw fi l-ardi kulluhum. yàlla mu ne bu ma neexoon ñëpp danañ ma gëm. boo ku nekk ci ko suuf ma damaa la bind. yàlla nag bu am bu joxewul 100 pour cent. waaw na ñu ko wéddi ñu bëree bëree kon ñu xam ne du ko waaye kon nag gannaaw yàlla joxul boppam 100 pour cent du ko jox kenn. mu ne kon nañ góorgóorlu. ñu ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla. ñëw ngeen ci jàmm. ñëw ngeen ci jàmm. jàll ngeen dem ci jàmm. jàll ngeen dem ci ñu digle ci ziare. li ñu digle digle ci ziare bi nga xam ne ku déplacé ñëw ziare fii. ak ziare sa mbokkum jullit. sa mbokkum jullit ak xadiis yi yonent bi wax mu ne liñ ci digle yëpp yal na yàlla defal ñu ko ñun ñëpp. yal na yàlla taxawu. taxawu suñu réew. def ci barke def ci àndoo def ci déggoo def ci waxtaan ak jub ak maandu ci barke yonte yàlla Muhammad yal na ko yàlla defal ñuy gërëm ñëpp. am na kàddu yu ñu fi defar ñu ngi nii pour Sidina Ousmane. ñaanal nga ñaanal ko gën a yegg këram. mu gisante mu suñu aay wala fa ci. waaw Cheikh Cheikh kër Cheikh Cheikh Cheikh waaw parce que di kado yi. Cheikh Cheikh ñu dem këram. xoolal lijjanti moom micro bi jaar. xoolal fii. mooy PM ci waaw li nga xam ne daal danaa ko santaane. mu ne li nga xam ne daal da ko yokk ci wax ji santaane ko président Ousmane Sonko. di la ko digal. gàtt na xat na. mu ne gàtt na xat na. waaye fii Alhaji Abdoulaye Niass tëdd. waaye fii maam Alhaji Abdoulaye Niass tëdd. les grands. xalifa Coolaaji moom. a mu ne képp ku fi mës a di sàkku li ngay sàkku. Omar yebal nañu dañ la fay yebal ne la demal foofu si Alhaji Abdoulaye Niass jañaa mu ne mi ngi la wax nga dem foofu ba pare ziare moom Alhaji Abdoulaye Niass kon mu ne balaa muy ñaan rek président Ousmane mu ne dafa fàtte mottali délégation mu ne kii toog ci wetam mooy sëñ Xaadim Mbàkke bokk ci délégation bi mu ne keneen moom imam Dramé moom tabaarkalla ñu koy singul baax a baax mu ne moom it bokk na ci délégation bi ci délégation bi mu ne sëñ Amar moom ci kër gi la dëkk Amar Fap papa Amet Cheikh da koo defaroon ay cadeau papa am na micro am ngeen def Fap Amet da koo defaloon ay cadeau. léegi Cheikh mooy joxe cadeau yi ñuy jox suñu maasoo ko. lépp lépp waaw lépp xaaral dafa am. may dem may may ko tuuti mu foto may ko tuuti. sëñ bi sëñ bi sëñ bi mayal suñu équipe. toogu ma ndax xale yi laa ko di ak kursi. waaw mayal suñu équipe comme mu ko toog mu jël bâche yi. xam nga xam nga bu baax moo tax man la mayal suñu équipe comme mu jël macha allah xam nga man. bisimilah am na xam. ah toog leen ci ñoom toog leen ci ñoom. toog leen ci ñoom. Thank you. ay xale yoo xam ne 13 ans lañ am mokkal alquran dama ne yow tëjal ma ñu koy ñaanal yàlla ñun bëgg ñoo fay. macha allah macha allah c' est tout macha allah c' est tout. waaye bu tëjee ci biir kër yi man man man man man man voilà mbokk yi ñun ñëw ko gisandoo président Ousmane Sonko moo ñu woon tey fii ci Léona Niassène ñëw def si ziaram comme ni ñu ko waxee woon dégg ngeen discours bi nga xamante ne moom def na ko moom président dégg ngeen également discours bi nga xamante ne porte parole bu Léona Niassène def na ko ko dalal ko teral ko léegi nag bi des mooy génn def ziaram dellu ca Dakar ñuy ñaan rek ziar bi ak ñëpp ni ñu ko xamante ne noonu lañ ko bëgg suñu ñu ko ba ñu defee ko nañu ko bëggee donte ci biti li fi nekk ci mbooloo ci ay ndaw ñi nga xamante ne tey bii nii ñu ngi xaar président Ousmane Sonko ngir saakonte ak moom na toll na loo xamante ne xanaa suñu borom dafa ñu xéewal ak sutura ñu génn ci si jàmm xale yi encadré lépp tegu ci yoon ñu delluwaat ca Dakar waaye li ñu leen mën a xamal daal mooy comme moom ni mu ko waxee wootewul mbooloo waaye yàlla mooy maye te yàlla moo ko may moom président Ousmane Sonko képp koo xamante dem na fa tey jii fii ci réew mi ak sax bitim réew bu ko ko yàlla defaloon tey jii nii dinañ gis ne képp koo xamante ne Sénégal ñor na la dina génn tatagal ko saafonte ak moom loolu mooy li fi nekk duñu coupé live bi dañuy ànd ànd ak équipe bi nga xamante ne ñoo war a génn wan leen li nga xamante ne moo am fii ci Léona Niassène mbokki ñun ñoko gissando nonu président Ousmane Sonko mo ñu won fi ci dañu sét ñu né dañuy ànd ak yéen mi da bari dañu buxonté ba genn ngir delu ci tok fi wax leen li nga xamantene ne xew amana sax jarul ñukoy wax parce que gissal ngeen ko seen bop waye li dal moy li nga xamantene ne am fi ci dañu sét gannaaw bi nga xamantene ki nga xamne mo moy porte parole bi le du khalif de Léona sét tatagal nako, téré nako. wax ko li nga xamante ne moom la ko jox ci ay kàddu mu yóbbante xalif bi lépp nekk ci teraanga lépp nekk ci ak tedd gi comme xadaratul jumaa bi mi ngi tàmbali fii ci na Niassène moom président Ousmane Sonko moom it mu gàddal gàttal discours am waaye lim xamle rek mooy jullit la taalibe la fu mu dem ci këru diine yi du fa politique waaye fépp foo xamante ne ci këru diine yi la am na droit dem fa dana fa dem mu ziyaar jotee mu ziyaare loolu këru diine la bu dee foo xamante ne jumaa la doomu aadama te ngay jullit bëgg a comme ni ko alxuraan waxee tam wax ko moom président Ousmane Sonko këruk yàlla moom këruk yàlla la amul kenn koo xamante ne mën nga tere benn doomu aadama mu jullit ji fa l'essentiel mooy mu nekk jullit képp moom la fi président Ousmane Sonko wax kon ñu jox leen dig daje incha allah ci kanam bu dee am na yeneen événement yoo xamante ne jar nañu dégtal leen ko waaye daal li ngeen gis fii nii ci Léona Niassène mooy li nga xamante ne moo fi am dama génn pour mën leen a wax ne nga pas en ce moment parce que bari torop torop torop le président Ousmane Sonko. non kay dañ chauffeur te waru chauffeur. <laughs> voilà merci beaucoup. non, def jeex oh, non ma nga merci beaucoup.